jaajëfate jaajëfate sama gars yi man la Mister Shake depuis Brooklyn New York tey dama ñëw defal leen benn zapping dama bëgg wax ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy diggante Mo Gates ak Wally lan moo tax moo Gates génn di dal ci kaw Wally ba mbiru ñaari tur sax daal ci génn bi ci topp dama bëgg wax ci euh, affaire Karim Xurum Xaq ak Mame Mbaye ndax Mame Mbaye dañ ne dafa wóolu Karim Xurum Xaq daf ko bëgg yóbbu ci yoon ndax Karim Xurum Xaq dafa wax ne Mame Mbaye Niang ba yëf yi tàngee dëgg wi mars xale yi xeex dëkk bi tàng moom dafa ndaroon daw ñëw ànd ak Sonko nañu commencé ci Mo Gates Mo ñëpp xam nañ ko senegal benn nit la boo xam ne dafa nekk Las Vegas fii États-Unis mu ne moom milliardaire la dafa bari xaalis moo git gis nañ ko mu woo ay mbër gis nañ ko mu woo ñoom DJ Boubs gis nañ ko mu woo ñoom ñànqarañ di leen jox xaalis wala di nekk ci ay avion njole taal mu bari ay problème trop ci moo gét ndax bu ñu toogee dégg ñuy tudd Sankar Mbaye di tudd njole taal di wax def nañu lii def na lalaa nga dégg benn jigéen mu génn mu ne moo gét ba mu demee ci moo gét ay oram dañ ko fa sàcc mais ngay dégg façon lu ne nga dégg ñu ne la am a neex am na benn mbër bu mu doon xeexal foofu ba ñu ba am na nu mu doon demee sax police ñëw kon foo toog rek da dégg ay scandale ñu naan la moo géet lii moo géet laa nga dégg booy Adamo génn fii di wax moo géet ah li muy woote dara du ci dëgg yorul xaalis moo géet dafa am sax problème ak police ndax ay affaire crédit card ak yeneen i njuuj yoo xam ne da ci nekk kon tey bu ñu toogee ñu déggaat ñu ne moo gét moom moo ci Instagram maanaam ci benn compte mu bind mu ne Wally Seck moom daf ko waroon benn concert maanaam Wally Seck dafa waroon ñëw fii Amérique wayal ko nit ñi ñëw mu am ci xaalis mu fay Wally xaalis moom sax waxoon na ne jox na Wally Seck avance waaye da moo gét dafa bind ñu ne boobu daf ko annulé maanaam daf ko dàq amatul waaye bu yemoon ci wax loolu rek mu neex waaye dafa ci li mu bind dafa bind daf ci def ay drapo góor jigéen ba pare mu ne mu woowee Wally Seck Rainbow Kid Rainbow Kid Rainbow mooy mooy euh, drapeau góor jigéen bi mooy euh, couleur yi nga xam ne góor jigéen yi bu tawee ba pare asamaan si boo ko xoolee da ngay gis couleur yu bëri góor jigéen yi dañ ko jël aakimoo ko nee na loolu mooy seen drapeau kon nag lu tax Wally Seck moo gét di di dal ci Wally Seck ñun tey loolu la ñu bëgg xam lan la Wally Seck def moo gét ba moo gét war a mën a xëy rek di dal ci Wally loolu moo jaaxal ñëpp ndax kat moo gét bu fekkee ne sax li muy woote du dëgg ci moom bu fekkee ne dafay woote xaalis boo xam ne daf ko am nee na milliardaire te amul milliard en tout cas kenn mësu ko gis man de mosuma gis moo gét fu mu jékki-jékki rek daal di songu nit li ñu xam ci moo gét mooy nit song ko mu fayu ci ay gaaruwaale ku mel ne saa njoogu yëgoon na dal ci kaw moo géen di wax ne moo géen dafa am lu mu bëgg senegal waaye li muy woote dara nekku ci moo géen tontu génn benn xaj xaj ne xool leen saa xaj bi saa njoogu tudd man loolu laa xamee ci moo géen xameewu ma ko ci tontu Wally Seck ñépp dañu yaakaar ne ay xarit lañu ndax Wally Seck bu demee ba way moo géet way bu boy bu neex moo géet def ci challenge xam nga way bu neex aw balde fekk Wally dakaar Dakar euh, Wally Seck way way boobu aw balde jël xaalis bu bëri daal di baatare Wally Seck ñëpp yaakaar ne lépp nice kon tey bu ñu yóbboo lii wax ju ñaaw ji man ba mu ko njëkkee dégg dama ne noonoo non lii du moo géet dama ko déggee dama ne lii du moo géet ñu ne ma def na ko ci compte Instagram am def na ko ci compte Snapchat am ci laay doog a xam ne dëgg la sànq laa dal seetaanaat Adamo muy saaga moo géet ba pare benn xaritu Adamo mu ne moom bind na moo géet moo géet nee na dina ci wax waaye ñu ngi xaar moo géet buy wax lan la ciy wax man li ma jàpp mooy ne moo géet ak Wally Seck dañoo am problème man loolu laa jàpp problème bi nag lan la est-ce que moo géet dafa bëgg Wally delloo ko xaalisam Wally Seck ne ko du la delloo sa xaalis parce que moo gën daf fi yàgg toog mu ne Wally moom jox na Wally Seck avance man te dama gisul lan moo war a mën a boole Wally Seck ak moo gën ce que ñaaxarañ dafa am problème ak ñaaxarañ ndax ñaaxarañ ñëpp xam nañ ne mës na fi wax ak moo gën mu ne moo gën xaalisu pexe la yor mais après ñoom ñaar juboo nañu ba ñaaxarañ delluwaat Las Vegas lan moo war a mën a boole Wally Seck ak moo gën loolu yàgg-yàgg dina feeñ mais en tout cas lii moom rafetlu wuñ ko. ndax Wally Seck ñëpp comme ni ñu ko waxee papam Thione Seck dafa gaañu dafa dafa jóg génn àdduna ñeent fukki fan yi defe naa mi ngi doog a jeex kon nag li war sabab moo géet bu dee moom la bu dee moom la ndax compte Instagram moom la waaye comme moom nee na dina génn dina ci wax ñu ngi xaar mu génn mu wax ci nee nañ nag ñu ne moo géet dafay waaj def làmb est-ce que dafa def lii ngir am tur ngir ñu waxaat ci moom ngir euh, euh, mu dafa bëgg nekk promoteur làmb est-ce que loolu moo tax man yaakaaruma ko yaakaaruma ko ndax yow bu fekkee da ngaa bëgg am tur rek boo woowee Wally Seck wax ko ah, jàppale ma ci événement bi dina dem lii lan lay nduru fayantu lay nduru bu ñuy wax mbiru fayantu nañu waxante ci Karim Xurum Xaq ak ah, Mame Mbaye Niang démb dama ko fi wax ñu bëri di ma bind naan ma non non li nga wax amul li nga wax amul damal vérifier sa information Karim Xurum Xaq weddiwul weddiwul ne dañ ko indil convocation moom leen la weddi dafa weddi ne dafa làqatu ji bañ koy indi euh, convocation làqatuwul kanam xurum xaq làqatuwul waaye nee na tey tey la joxanteeg rendez-vous ak avocat Mame Niang ndax woo nañ ko ne dañ la bëgg indi benn kayit kayit bi nag mooy nga wuy ci police léegi bu demee police baa duñ ko téye yaakaaruma ne dinañ ko téye ndax xoqatal bi nekk Sénégal moo doy waar Mame ñaa dafa génn mu yàq Sonko lu ne amee lu ne mu wax ko di menacer nit ñi Macky Sall génn fii menacer nit ñi tey nag ñu gisaat ab du Mbow dem quartier général di nooyal ñun xamuñu régime yu Macky la lan mooy seen problème bu kii ñëwee di saaga kii ñëw di sotti ndox mu sedd Macky Sall moom ci boppam moo ne li fi am dootu fi amaat xale bi fi dem gendarmerie fi nga xam ne foofu la ñuy denc euh, gànnaay yi loolu dootu fi amaat Mame Mbaye Niang génn ñaari yoon njëkk génn si set si set TV

waaye li mu bëgg a def munul ne munuñu nekk ci dëkk juróom-ñeenti at amul liggéey amul dara ngeen jàpp ni ñu di xooxatal nan la Sankara Mbaye di ñëwee Sénégal ñu koy arrêté ci biti ci mbedd aéroport yi jël bagage am sotti ci suuf di ko jéem a xool ndax dañ ko est-ce que dañ ko bëgg a takkal est-ce que dañu bëgg def drogue ci ci ci euh, ci valise lan moo tax ñuy def loolu jéem a xooxatal nit ñi loolu moo jaaxal nit ñi mais daal ñun li ñuy wax rek mooy xam nañ ne Macky la le 8 mars moo ko metti xale yi li ñu génn xeex bañ moom mu ndaroon ñàkk nguuram Moustapha Diakhaté ne woon na am na président bu ñu jëloon ba pare président de transition Macky ñëpp a bàyyi ko Mame Mbaye Niang nag këram xum dafa ne moom bokkoon na ci ñi daw Mame Mbaye Niang dafa jéem a Sonko ngir jébbalu ci Sonko loolu nag moo tax mu mer mu ne dafay porter plainte këram xum xaq waaye ñun xam nañ ni du mujj fenn du mujj fenn ndax këram boo ko jàppee. waa nitu dëgg dinañ génn waa FRAPP dinañ génn ñëpp dinañ génn ñun lañ leen di wax mooy élection yi da ngeen ko jéem a defar lépp normal Sénégal am jàmm boo leen ko deful dëkk bi dafay tàkkaat waaw gars yi lii benn zapping bu ndaw la bu ma bëgg a def Mister Shake la depuis Brooklyn New York like leen partager leen abone leen jaajëf ba beneen yoon merci